Daouda Ndiaye ak candidat bu PUR Aliou Mamadou Dia fekk ji nañu Déthié Fall Abdourahmane Dieye ak Boubacar Camara ci wàllu parrainage yi idi mu ñu rëkkale loolee nag la yëglekaay bi di Sud Quotidien daal di xëy fësal ci xëtam bu njëkk yéenekaay bi ne saytu gi jëm ci wàllu parrainage yi ca conseil constitutionnel nag njiital parti réew mi nga xam ne rek moo nekkoon deuxième ci présidentielle yu atum 2019 jamono ji mi ngi ci ay jafe-jafe ngir lu jëm ci wàllu doublon yoo xam ne rek ko nemmeeku ci ay dossier am nag yëglekaay bi ne ñaari candidat bëccëgu démb ji nga xam ne rek ci lañ doon saytu yeneen i candidat jëm ci wàllu parrainage yi mu di professeur Daouda Ndiaye ak Aliou Mamadou Dia bu PUR des ba tey ci wàllu saytu gi ñeel parrainage yi l'observateur dellu soit ci mbirum Idrissa Seck yëglekaay bi ne mi ngi ci danger moom njiital parti réew mi ndax lu toll ci juróom-ñetti junni ci ay doublon moom la ñu nemmeeku ci ay dossier mu war koo saytu ngir mën a jàll ci yile parrainage yëglekaay bi ne moom Idrissa Seck nag bu bokkul ci élection yi bu yeboo rek mu daal di lem ay kàkkaam te bàyyi politique beneenub quotidien feelu ko ne Idi kay jamono ji mi ngi ci danger danger boobee nag li ko waral bokk na ci juróom-ñetti junni ci ay doublon yoo xam ne rek candidat bi am na ko ci wàllu parrainage yeneeni candidat yoo xam ne jamono ji nag génnee nañu leen ci élection présidentielle yi mu di Alioune Sarr ak Jean-Baptiste Diouf ñoom nag démb waa conseil constitutionnel dañ leen a recalé mbir yaa ngay gën a doy waar loolee nag la yëglekaay bi di enquête daal di xamle ci xëtam bu njëkk jëm nag ci rejet yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci ay dossiers yu ca kanamu conseil nag candidat yi tolloon nañ ci ñaar fukk waaye ñaar kepp ñoo ca jàll yëglekaay bi ni ne Idrissa Seck Aliou Mamadou Dia Pape Djibril Fall ak Serigne Mboup ñoom nag war nañoo amalaat ay saytu ci seen parrainage ngir mën a jàll ci ñaareelu tour bi ay doublon externe fichier boo xam ne rek kenn xamut la ca ne ay parrainage yu kenn mënta reconnaître fukki candidat ak benn yoo xam ne nag versé wuñu seen caution loolee lépp nag ci la Vox Populi daal di dellu siwaat nag samp ab laaj di ne nag massacre yi moom ma ngay woy ca conseil constitutionnel ndax ñaari candidat képp nag ñoo jàll démb ci ñaar fukki candidat yoo xam ne rek doon nañu saytu seen wàllum parrainage professeur Daouda Ndiaye moom nag démb ci suba la at mi ci première tour bi Aliou Mamadou Dia bu Pire daal di caa topp nag waaye moom war naa saytuwaat nag lu jëm ci ay doublon yu ñuy tudd ci ay dossier ma Ibrahima Lo di mandataire bu professeur Daouda Ndiaye di xamle ci biir yëglekaay bi ne logiciel bu leer bu ànd ak transparence moom la ñu teg nag ci lu soxal liggéey bi ñuy amal ngir xool daal lu jëm ci wàllum parrainage bi muy xamlewaat nag ne képp koo xam ne daal liggéey nga ci yile parrainage parrainage mën ngaa jàll te doo am benn jafe-jafe la loi du tamis loolee la bés bi yëglekaay daal di xëy fësal ci xëtam bu njëkk mu ne Idrissa Seck nag jamono ji nag mi ngi ci sursis waa PUR nag naam jàll nañu waaye am na lu ñu war a càmbaraat Serigne Mboup nag jamono ji ay mbiram leeragul ndax ay doublon yu ñu nemmeeku ci wàllu parrainage am Les Échos daal di dikk nag ci ñaareelu fan bi nga xam ne rek ca lañ doon càmbar lu jëm ci wàllu parrainage yi yëglekaay bi ne professeur Daouda Ndiaye admis d'office am na ñeenti candidat yoo xam ne rek war nañoo jàll ci deuxième tour bi bokk na ci Idrissa Seck Pape Djibril Fall Aliou du Dia ak Serigne bopp waaye nag Cheikh Bamba du Abdou Mbacké Dollé Alioune Sarr ak Jean-Baptiste Diouf ñoom nag bokkatuñu ci élection yi l'info dellu soit ci ñaareelu fanu yi ne moom kay ay surprise ak i échec rek lañu ci daal di nemmeeku ndax ci ñaar fukki candidat yoo xam ne rek sayt nañu seeni dossier te conseil constitutionnel daanaka rek ñoom ñëpp lañu naj lu ñu mel nag waral ba tribune yëglekaay dellu soit nag ci ñàkkum leeraange ci processus bu parrainage bi nag ak it ay junniy yoo xam ne kenn mënu leen a gis ci fichier électoral bi ca conseil constitutionnel moo waral nag yëglekaay bi di laaj ñaata fichier moo nekk ci réew Sénégal jamono joojee Le Soleil yëglekaay daal di taxaw nag ci projet bu cent mille logements ma ngay xam ne nag ne jamono ji boole nañ ci waa diaspora bi ndax li ko dalee ñaar fukki fan ak ñett ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre sénégalais yi nga xam ne rek ñoom ñooy yeewoo ca Brazzaville ca Abidjan jàpp Libreville ba ci Ouagadougou jëwriñ ju ñu ba wàllu urbanisme ak logement nag ak hygiène publique Abdoulaye Seydou Sow ma ngay xam ne nag ne dugal nañu leen ci bile projet projet gu mag a mag ñii nga xam ne rek ñoo di maire yi jiite bokk moomeel yi ndax nag amal na ab taxaw seetlu ci ñoom ba la ñuy àddu jëmale ak yëglekaay bi di staate Iliman Ndiaye ma ngay xam ne nag nekkaan bi moom mën na koo dimbali te it nag am nañ yàqiin ne bu ñu demee dinañ indi ndam li sunu làmb daal di dellu suwaat nag ci roi des arènes muy Modou yëglekaay bi nag dikkaat ci palmarèsam ñaar fukki combat ak juróom-ñett yi nga xam ne rek jot na ko amal am na ñaar fukki victoire ak ñaar moom moo Lo ñetti defet la jot a am ci làmb ji ak benn match nul jeexalee yëglekaay ak ub dossier boo am solo boo xam ne rek Walf Quotidien def na ko ci wàllu pari foot askan wi ni ñu ko jëlee taala moom di ab élève nekk ca première L ma ngay xamle ci biir yëglekaay bi ne naam nag bëgg naa arrêté waaye nag li ko téye xamu ko ba dëgg ni si yëg leen yëglekaay bi keneen koo xam ne rek yankoo ba lay wuyoo xam le ne nag def na ñaari yoon bakk waaye mënta fexe ba jàll ndax naar bi mbokk yi loolee gën a na fës yëglekaay jàmm ak jàmm société